سهر أو سهرة إن لسنا إلى سرسارة خلق صندوق سهرتي فارخ دار أو سهرة يا سيدا في المال خلص أرواحه ويا عيبا فادي دير مسواه إني أتيت لوجه الله سعيكم أبخي بي نيل ما أرجوح نيل ما ne la ma arjo wa ahwa yalla na am jam barke sul khadim jeer ngeen jeex barke Borom tuba baye ngey ma ngi dekk tiwaawon soxna Cheikh Tidiane Diop di classe 85 3 ginnaaw bi ñu sante yalla julli ci tuba tedd bi ci barke mam Borom tuba bi ñu dajale fi ak suñuy borom kër ak soxna Mami sambu soxna Mami sambu moñu yaatal ci bis bii ba at mu nañu koy téwé ci dimbal yalla katanu ci bar bisu mam borom Touba bi di sant leen ma sant leen ma yalla soxna mam sam nak ma ngi gëm ni mom wa keur Serigne Touba da leen a rek wa wante gënuñu ko bëgg Serigne Touba soxna mam sam xolum ak yéeneem ak gis-gisam ci mam borom Touba mom bu sañon moy def léppi Touba bu sañoon mooy gàddu léppi Touba xolam ak borom kërëm xolam man na ko jëfam mën na ko jotalam mën na ko nag ku ne am nga ci cër maam borom tuuba moom ñëpp ci am cër ndax nitu yàlla ñëpp ci am cër ndax ñëpp am ci cër dafa liggéey yàlla ba yàlla sédd ko bis bii du fay ku dund fekk ko fi ku dem bàyyi ko fi kon yàlla na yàlla taf ci barkeem galo mbay xolam bot na ñëpp rogganti na ñëpp yaatal na ñëpp waaye bu ko bëggoon tam mami nangu ko kon mbooloo mi duñ fi daje waaye li ni jigéen moo yor kër mami moom amutum saarit ci kenn amul kii xale la amul ki ndaw la amul kii mag la ku ñëw rekk te yàlla rekk tax ak sëriñ Touba rek yaa ngi ci biir xolam moom àttan na ñépp togg mo ma moom macha allah dara manquéwul lu mu def ak lu mu deful rek xolam upp na loolu may mom man nima ma ko gisse jangate ko non mami Serigne Touba dafa jur njabootam waaye leer na ma ne mamee ko gëna bëgg mom loolu yalla moko def ci mom xolam mom Serigne Touba ba jeex tak la da ko bëgg da bëggantu ko triste ak triste dafa am mom man nima ko gisse sama xol sama xalaat sama jëm amul triste ci mom da ko bëgg ba jeex. Amin Ndiaye soxna Ibrahima fay joge ba ties ñëw ci ci magal gi ci kër Mami sam ah mami nak mo tax nak ñun ñepp ñu mobiliser ñëw ci bisam bi tax euh man maay sen présidente maay sen présidente classe 85 3. waaw man maay seen présidente moo tax chaque année macha allah ñu def luñ mën ak lu ñu mënul ñu ñëw teewel ko bisam bi. ak trois ans ci ren. Hmm. saa yoo ñëwee rek da nga gisoon daaw da nga gis lu ko yéem da fekkoon daaw boo dellusee da ngay gis lu ko yéem te na mu meloon nag soxna ma mi du changé benn yoon da ko gisee woon daaw rek boo ñëwee ren noonu nga koy gisee. macha allah dañuy nit ñoo xam ne boo ñëwee sax ni ay soxnaak borom këral danga naa ñi ñoo bokk ndey ak baay ndax ni ñu mel macha allah te koo ci gis nag ci koom ba nga gisoon daaw daaw jéeg soo ñëwee moom nga gis leen macha allah di leen ñaanal fan wu gudd ànd ak wër saa borom yokk seen xéewal ba ñépp xaj ci barke borom bis bi nga xam ni bis bi rek a ko ñor soo ko woowee téléphone ni ko ren mënuma màgg asim ne ah déet waaye waaye jéem leen rek jéem leen rek soxna si ngeen ñëw macha allah yal ko fi yàlla bàyyi guddal fanam lool lool lool yokku wéram di ko ñaanal yàlla yal na nu yàlla ba dund xaadima mii di wàcce bis ba ñëpp teewti ci barka yonent bi suñu yéene ci moom ak suñu xol nag ëpp na lool ci soxna mam akay ay jërëjëf bokk taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk tur ak santam di ziar ñëpp di bokk ak yéen euh, màggal gi ah di ñaan yalla bu déwénee yalla nañ ko fekke te tal ko te lépp luñ ci mën ren ñu mën déwén ci lu ko di ñaanal borom kër gi yalla na yalla may ko gudd fan ak wér rek wérle ba déwén ku ñëwul won sax ci kàttanu yalla yalla na la yalla indi soxna mami gis nañ sa taxaway soxna mami contane nañu man nak ya ayda ma ngi joggé région de Thiès département Tivaouane sœur ci sox ke Cheikh Tidiane Diop bokk ak Gallo armée mais démb la woon classe am yëpp ñëw nañu kenn fàttewu ci sa morom ku ci nekk yaa ngi dawal ngor yaa ngi dawal kóllëre ba tax ñun ñu wàllu si ci tey ñëw sant leen bis bii di bisu maam borom Touba bi yàlla nañ ko yàgg a fekke te tal ko mami seddal ni kontaanam mi ma mi séddal ni am nga yëg. lépp luñ doon séentu ci yow gis naa ko tey man foogoon naa ni sa yëg gi ca kër ga rek nga ko yemale mais mbekete ku la fekk sa kër sax <coughs> fo moo raw gis nañu parce que gan nag moomul lu dul xool ak déglu te mami ubbi nañu sunuy bët ubbi sunuy nopp ubbi sunuy xel gis nañ sa taxawaay fii ci kër gi fii ci dëkk bi mami ñoo ngi ñaan ci yàlla yàlla yokk sa taxawaay yokk sa fan yokk sa wér gën laa jubbaleeg sa borom kër ak sa njaboot ba nga xamante ni bis bii waxuma la ñun ñii mais bu soobee yàlla incha allah ñëpp fi la ñuy daje ñaanu borom Touba gi nga xam ne moom lañu yaakaar ci bis bii yàlla na la dal dalaale nu ci barki bis beeg waxtu bi yàlla baax na maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. Moustapha Mokhtar euh, Cheikh Moussa Camara. dekk gangel gangel Cheikh Moussa ma ñewoon fi ci magalu Touba bi suma classe galo mbay ndjay la classe 85 defal nañu ay teranga, yo xamni yu mucc ayib la rax ci euh fekk nañ fi ay mbokam yo xamni euh gatanu nañ ñu eh, teral nañ ñu eh, daanaka daal dara dara manqué wu fi parce que li lay marqué dafay bari ndax euh, boo ñëwee ci bërëb ñu gatanu la teral la ñoo ñu desalatuñu la dara li ñuy ñaan yàlla mooy yàlla yàlla ñu may ñu gudd fan ak wér ba ñu mën a teewe ay déwén yu bari yu bari yu ànd ak wér ak wér la yàlla tamit dara tawul nangul leen lépp luñ fi def yàlla nangul leen ci barke boroom bés bi di Cheikhul Khadim Ahmadou Bamba liñ ci mën a wax mooy rafet na neex na bëri na jàmm bëri na salaam euh, soxna si sàmb soxna la ci soxna yi neex naa présenté neex naa wone ndax gan bu ñëwee cib dëkk bu ñemee njaatigem moo ko ko may dengare sohna de soxna si Samb sunu classe yep nak kàddu bi ben la soxna su melni mom jafena na ci mbax ci dal ci gem sëñ bu mag bi ci gem mbokk ci gem xarit andando dem bu bala tay ok dañ koy ñaanal yalla la fal ko cat mom ak andandom parce que fekk nañ fi ay mbokam yu joge Gambie par exemple ñu jóge ba Gàmbi ñëw teewee si fii ci këram yàlla def ñu xamante ak ñooñu fii kooku mbaaxam weesu na classe am yi weesu na euh, classe jëkkëram weesu na ay mbokkam parce que na ko ay xarit yoo xam ne jóge ba bitim réew ñëw fekkee si man Fuuta laa jóge dëkk bi ñuy wax Gàngeel Gàngeel Cheikh Moussa fa laa jóge boo gisee nag mu jaral ma mu jóge foofu ba fii ñoom jar jar nañu lu ko ëpp ndax seen mbaax

couple couple bu heure la couple bu rafet la boo xam dañ leen di ñaanal yàlla yàlla may leen wér wérle eh, ba njaboot bi barkeel leen ci li def ci barke yeneen sallallahu alayhi wasallam man nag maa ngi bàyyeekoo ba Thiès eh, ma di classe ci golo jaay maanaam ñun ñaa ñoo solandoo armée soo gisee suñu ñoo fi man Ibrahima sant fay màggal gi nag macha allah amaana man mii bii mooy sama première fois ma ñëw ci màggal gi waaye nag ñaari at yi wees yëpp yebal naa fi samay soxla ñaari at yi mujj yëpp yebal naa fi samay soxla ba la njëkk sama soxla su ñuy wax xaddi fay laa yebaloon mu ñëw teew si bii wees it ki ñuy wax soxna Ami njaay ñëw na bii man ak moom ñoo ànd ñëw ndaxte galo moom Euh, dafa nekk nit koo xam ne nit ku baax la ku yëgi classe la ku am yitte ci ay classe am parce que moom Ngalo amaana euh, bu nekkoon fi senegal kon lii ñuy seede duñ ko mën a seede ci moom mais mu ngi ba bitim réew mais mënuñoo toog fan je ne dis ñaari fan mais benn fan ak te déggante ak moom ci loolu yëpp mbaax la ci moom soxna ma mi moom ak sama soxna ay wëllëre la ñu it muy soxna Ami Ndiaye ay wëllëre luñu du ñu toog weeru lëmm te déggante ñu ñoom ñaar sant bu wér xam nga nag man ab taalibe cheikh la galo mbay njaay moo tax ma ñu mos a màggal si tey màggal gi nag lii ma gis nii li ma ciy njëkk ñaanal galo wax naa ko ko sànq li ma koy ñaar yàlla lii yàlla na ko yàlla saxal te fii mu toll nii am nañu yaakaar ne day gën di jëm kanam parce que jaay at yi ci ginnaaw seedeel lañ ma lañ meloon bii it ñëw raw parce que ñun dañoo am amical bu ñuy wax classe quatre-vingt-cinq trois te mboolem suñu classe yi fépp fu ñuy daje nag amul benn boo xam ne dina ci ëpp effectif bii ñu nekk nii parce que généralement dañuy organiser assemblée générale chaque deux ans mais ci assemblée générale képp luñu gis né euh ay classam dañuy dajé mu upp bi kon nak manam vraiment sant yalla té loolu yépp ay mbaxam la amna ñu ñewon daw ñëwuñu ñu am amna ñu ñewon daw jégg jéeg ñu ren té nak at bu jot rek mu gëna bari loolu mom mën nañ ka sét diko ko diko di ko sant di ko ñaanal yàlla lu ngay ñaanal yalla moy yalla bu mu ci gis boobam yàlla bu mu doon bu mu doon loo xam ne ngistal la ci moom te am nañu yaakaar ne lii du ngistal ci moom di ko ñaan yàlla yàlla na yàlla nangu lépp luñ fi ñaan te yàlla def at bu jot mu gën a neex ren ci bàkk yonent bi bàkk sëñ euh, bu mag bi nga xam ne mooy yaakaar di wasilam asalaamaaleykum wa rahmatullah Amadou Niane jógee ba Tiwaawan euh, di classe ci Galambay Ndiaye ñu andando dem bokku la classe 85 3 galo di sunu classe euh, vraiment motax ñu ñew fi ci magal gi pour and ak mom magalé ko sëñ bu mag bi man tay du biir suma moy sama ñaarelu magal euh njëkk na fa ñew ñewat fi ah vraiment ñuy ay nit ju yaatu ay nitu neen lañu vraiment nit ñu oyof ñu bëgg doomu adama aussi Euh, ñuy ñaan yàlla rek euh, màggal gi yàlla bu mu doon suñu mujjantal màggal te lépp loo xamante ni vraiment def nañ ko fii yàlla na doon mu xéewal gu saawaan baawaan ci doomu adama yëpp jullit yëpp bi jaay sa jëlu jut ñoom ay complice lañu ñoom ñaar ay complice lañu vraiment euh, te yaatu nañu aussi amul lan loo xam ne mën nañ leen ko mën nañ ay nitu neen lañu quoi. ñu jël exemple ci ñaar ni li da fay lo ne exemple la nekkon nak ay nit ah depuis 85 ngeen andando demondo quartier yalla def euh, ngeen di ando ba lii am mu ñoo am fi kër di magal magal jot mu wo ay mbokam ay classam ñew ni len kay len ñu and magal lolu euh, vraiment jam rek la ci gis <laughs> te aussi xalé yi aussi buñ ko copier jàmm rek lañ ci am. Ousseynou waaw tey nag moom Théodore gi dañ koy dindi ñu daal di bàyyi Ousseynou seen gi rek ci biir waaw ñëw dañoo ñëwoon màggal Touba tey waaw def naa fi nag presque ñeenti fan ndax mardi ba léegi maa ngi fi. non doon naa fi ñëw ay ati at dama fi gëj presque def naa dix ans ñëw ma fi. mais ren yàlla moo ni woon il faut ma ñëw fii daal waa galo suñu classe la ñoo defandoo armée ñoo defandoo lépp ñuy demee noonu di demee noonu ba ñu libéré ku nekk pare ñu continuer di dundaat liñ doon dund depuis Bango ba léegi donc depuis 1985 la woon waaw kon yaakaar naa ni du tey rek lañu xamante quoi li mu jàpp ni mën na ko bañ a bàyyi nag mu continuer loolu rek vraiment waaw am tam ñu ngi koy gërëm parce que aussi def na li mu mën yëpp waaw bi ñu ko présenté man bi ma ñëwee mu présenté ma ko dafa mel ni 10 ans la ma xam waaw. waaw léegi léegi lan mujj a wax mu may ni waa bu ñu paree sax dinañ gën a waxtaan ndax miinu ma woon comme daf ma doon nii rek si suñu panel bi mais miinu ma tey la may doog gis nag mais mel na ni 10 ans la ma xam waaw ak samay classes yi sama sama eh, soxna yi nga xam ni ñoom laa fi fekk. Euh, ñu nekk sama soxna classe yi ñoom ñëpp aussi vraiment jàppee nañ ñu comme seen suñu classe yi ni nekkee seen jëkkër daal vraiment kontaan nañ trop si affaire bi vraiment ñu mu ko doxalee. Serigne loo seen maa ngi ziare ñëpp inspecteur ñuy seetaan ñëpp de leen ñaan tawfeex di leen ziare ci màggal gi. di wax ni Gallo day sun suñ doomu bàjjen soxna moom it di suñ di suñu jigéen wax dëgg yàlla ñuy ku baax nga xam ni ah, at ma ñëw dañ ñuy woo ñu ñu leen di yëkkati fi ay ay ay xasaay màggal gi sax ka xat na waaye bu doon benn dix la sax nan ko fi def ndax seenu bëgg Sëriñ tubaa ak seen bëggu mbokk moo ñu indi fii moo tax dañuy dagg suñu yitte yëpp ñëw fii ngir jëmmi bis bi. ku baax ku bëgg Sëriñ tubaa ku nangoo sonn ci Sëriñ Tuubaa ku nangoo liggéeyal Seexul Xaddim ci loolu lañ ko xam depuis ban ko xamee léegi liggéeyal Sëriñ tubaa fii ci dëkk bi kenn mënu ko ci liggéeyu jumaa ji daldi donge yi yeri ndongay bu télimé moy fot barab seigne tuba bi kenn mënu ko ci jumaa ji noonu moom li nga xam ci mom dal benen waye ken mën ko ci liggéey seigne tuba ci leen xam dama yi barke khadim Xaadim ndax tay galo boko ko ci gër sax da ngay foofoog ni talib la fi te mom bay Faal la do ko gis ba yaakaar ni sax dara la ci kër gi da nga yaakaar rek kon jëlee ci àll ba la ñëw muy mi liggéey ni ñu fay du sol dal moy bale mooy root mooy doy na war daal yëm na la nag dañ koy ñaan suñu Tuubaa defal ko tawféex ba li mu yéene ci màgg yëpp moo àggale ko barke Seexul Xaddim booloo gi kay booloo gi yëm nañu barke Seexul Xaddim Mbàkke yëm nañu te ni ma yëmee la yëmee ñëpp waaye nag loolu du asar daal ndaxte lu yàlla defale lu njëkk dañuy ñaan sa borom jubal leen te mësal leen ci saytaane làqal leen yu bari barke Seexul Xaddim Cheikh Oumar Camara jóge Kaolack euh, li ma booleeg waa kër gi mooy Galaw Mbaye Ndiaye ñoo defandoo armée sama classe la ci armée loolu loolu ñu boole ba ma ñëw fi ba léegi ma bokk ci kër gi nekk ci njaboot gi li ma booleek ñoom mooy sama premier màggal Galaw daf ma invité ne man naa ñëw euh, màggal ci këram muy sama waay ma ñëw màggal ci këram ma gis ko mu nekk kenn. di def activité yi di yéeg di wàcc di daw di tëjji fu ne mu fay dugg te boobu ñii ay xelal lañu ça fait sept ans ren ma xool ko ne ko mais wooy nga def métti na mu a ma ah nii da laa koy doxalee ma ne ko indi caabi mu jël caabi magasin yi jox ma ma géral ko màggal gi ba mu jeex te ba màggal gi jeexee ma mi ngi woon moo njëkk a ñëw bi mu tijjee magasin yi dafa woolu ne papa galo kaay mu ñëw mu ne ko xoolal li magasin yi mënuñoo dugg un mètre ci biir te ñu ne buñ màggalaan ba pare euh, duñu dañuy dem ba sa miir ba dara du fa des ma gérer leen magasin yi buntu bi ngay taxaw nii di laal saako yi ñu ne ma xanaa Cheikh Omar kenn lekkut may leen est-ce que am na kenn koo dégg na xiif na wala mar na ñëpp lekk nañ kenn kokaas parce que gestion bi moo jaar yoon loo xam ne xam ne boo ma ko laajee te du yoon du la ko jox wala loo boo ma laajee te mami ngoon joxawul ndigal wala galo joxawul ndigal du ma ko jox léegi nag depuis booba nag ñu ne ma yow c'est fini dootuñ jox kii kenn dootuñ ko jox kenn yaa ñuy géral lii yàlla di def nag ñu dem ba léegi ren sept ans xale yi màgg nañu toll nañu ba am responsabilité mën a doxal affaire bi ñu noppal ñu màggaloo muy xaadim di ngañ di maam jaara ñoom xale yi ñoom ñëpp màgg nañ tabarakàllah yàlla na yàlla bàyyi leen fi ñu yor ko nag relevé ñu di ko gérer loolu mooy relation bi ma booleeg ñii ma mel ak ñoom mel ak ñoom waaw Gallo nag spécial la parce que dañoo xamante woon avant fii mu nekk nit ku baax nit ku woyof nit koo xam ne euh, lu mu am yéene na ko doomu aadama yi waaw la loolu moom ma booleeg moom depuis bu yàgg mu tax mu invité ma bàyyi lépp lu ma doon def jógee Euh, euh, Kau ñew diko fekk ci fi wa magal tuba mom man dana magal si parce que sama yaay mbak la dëkk man sama yaay Mbàkke gi la dëkk surtout Cheikh Moussa kala direct Cheikh Moussa Ka sama mam la moy sama mamu yaay lolu kon man ci magal gi la bok di magal si depuis bu ma nekkee gone élève waaw di kon di magal waye nak bima commencé magal ak galo yaakaar na ne façon màggal yi def daaw ma ko màggal parce que ma daan magal li taxawale fu ne ma dugg waaw la ngay na fi terrain lak nek élève ñew magal si nek Touba ak Mbàkke di dox ak di lijjanti fu ne nga dugg fa mais nak am ci magal gi responsabilité yeug ne ya nga liggéeyi ngir seigne Touba ngir gis na ya nga liggéey ngir dimbalé ñi nga xam dañuy tiant ci seen tiant gi nekkee fi la ko amé ñew nak yalla dimbalé ma ma dajé fek ay nit ñu bax ay nit ñoo xam ne nit ñu am couleur lañu waaw ay nit ñu am valeur waaw Buur Touré mu ngi nii fii laa ko xamee monsieur Tra mu ngi nii fii laa ko xamee te ay nit ñoo xam ne lañu ay nit ñoo xam ne bu ñu jàppee du ñu bàyyi ba ma lañ xamee ba léegi ñuy jàppante ñii ah, xaw ma ñoom seen jàppante fan la fan la fan la tàmbalee mais xam naa ne ay nit ñuy jàpp lañ te jàpp bu wóor la ñuy jàpp am si ay nit ñu bari ñoo xam ne xam naa leen relation yu bari am naa ko fi waaw fa tabarkalla léegi yàlla dimbale nañu maa fi njëkkoon a ñëw ci 5 3 yi di koy defal màggal noonu léegi daanaka dañuy romb léegi 15 euh, ba vingt personnes ñu ngi ñëw ay cinq 3 ñëw fi. waaw alhamdulilah loolu dinaa ci sawar a wax ndax nag. wa in shakartum la azidannakum yàlla moo ne boo santee ma dolli la loolu moo dal ma mi ak galo loolu moo leen dal bi ma fii ñëw année bi ma njëkkee ñëw benn nag la ñu rey quelque xar yi mu jëndoon ci benn kii mu wax mu wax pël pël pëlu màggal xaw ma ku mu ooyee pëlu màggal mu jënd fa ay ay ay xaram walla ay yooyu boole ko ñu màggal suñu màggal gu neex waaye fa la boobu ba léegi avancement bi yàlla la mu waxoon def na ko mooy boo santee ma dolli la waaw nit ñi tolluñu woon nii barab yi melul woon nii ci suuf lañ dëkkoon ñun ñëpp boobu fii pareegut ci kaw ni ñu ñëw fi xam nga suñu benn classe bu ñuy wax euh, Diop Mbay di ñuy may citerne ndox man di ko jëli sapeur di indi sa citerne bi di dem jëli seen ay tente tant tente militaire yi ñëw di ko monte fii ñu sant yàlla bu baax mu am avancement bu bari bu bari bu bari maa ngi fàttaliku sama deuxième xam sama troisième année laa fa tase yow am na bés ñu doon waxtaan ci affaire u mbindu mag yi mbindu mag ñi ñu ciy wax mbindu mag yi seen jëriñ nekk nangam ak nangam ak nangam ma ne leen dafa am loo xam ne gaa yi dañ koy fàtt ci mbindu mag yi téere téere yi nga gis fi yëpp nit bind ko da ngay liir rek ba am xam-xam mais téere mag yi da ngay liir am xam ba pare di ci faju rek ma xam ne sax fii waaw bien waaw j'ai ma ne leen téere mag ñi bokkuñu ak téere tubaab wala téere keneen téere bu sëñ tubaab bind danga nga siy jàng am ci xam-xam waaye boo ko jàngee da ciy faju faju bi mooy sa wér gu yaram dina ay say poos dina faju say aajo faju loolu mooy différence bi am ki ma waxoon ko ma waxoon leen ko ñoom tabarkalla macha allah boobu ba léegi nag yàlla ak may dimbale maa ngi ñëw yàlla na ñu yàlla yàgg a dimbale ñu am jot di ñëw di leen fekk ñoom it ay ati ati ati at lu ñu mën ren yàlla nañ mën déwén duubal bi xale yi yàlla na yàlla jàppale leen may leen wér waaw ba fu ne nii ñun léegi dañuy toog rek. waaw mm-hmm. kii te bu njëkk dama naan daw suba ak ngoon damay daw fajar ba guddi une heure deux heures du matin du tëdd. léegi yàlla def na dem na ba léegi ñun cinq trois yooyu ñëw léegi dañuy ànd suñuy soxna di ñëw waaw daaw jéeg sama ñaari soxna laa àndal waaw daaw kenn kay ñëw ren aussi kenn kay ñëw mm-hmm. la ñu ngi noonu daal ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax mm-hmm. sant nañu gërëm nañu asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Euh, di waajur ci soxna mami sàmb euh, di dolli di ko gërëm di ko sant ci jataay bi ak bés bi nga xam ne que tey di àjjuma 18 safar 23 août 23 euh, août ñu koy màggal fii ci këram chaque année E, yàlla dimbali ñu ak mbokk yi nga xam ne ñoo fi teew kii nga xam ne moo nekk sama wet nii di Omar Bour Touré nekk Gàmbi di fa kilifa di xarit di jarbaat ci ñun kër gi yàlla dafa dogal ñu am fii cër cër boo xam ne que kii di soxna mami moo ñu ko jël jox ñu ko def ma waajuram ci kilifteef ci lépp loo xam ne mu ngi koy dox fii moom ak borom këram jiital ma ci teg ma ci teg ma foo xam ne que dama koy bàyyi ak yàlla yàlla mi am fay yàlla na ko sunu borom fayal ci barke sëñ Touba eh, may remercier nag ki nga xam ne mooy sama toog sama wet nii di buur ci taxawaayam ci soxna mami fa mu ko teg na mu ko fonkee waxtu wu nekk bu ma ko wooyee mbaa mu woo ma mu ngi may laaj soxna mami def ko muy jigéenam def ko muy léppam ah soxna mami nag lépp loo xam ne tey mën na ko dañ koy sante yàlla sante ko ay waajuram ki nga xam ne mooy ndeyam boole ñu it ak moom nangu kilifteef gi nga xam ne moom la ñu jox ndeyam nangu ko jiital ko ci ak ki nga xam ne mooy boroom këram di lépp nag kooku mooy lépp tey jii fu ñu àgg loolu ci moom la moom doon na koo xam ne tabarka la macha allah lépp mooma jàppale soxnaam ci suuf guddeeg bëccëg bañ lu ko dara euh, ku ñëw fii dina xam ne que sëñ rekk amul morom lépp sëñ Tuubaa la bon nag soxna maam yi moom dañ koy gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla kuy baax di nga xam ne yàlla la gën a baax baax na tabe na gore na bëggul kenn ko sonn lu mu am suba ba ngoon doomu aadama yi la koy la koy jox bon kooku ku jara ñaanal yàlla la ñun dañ koy ñaanal yàlla yàlla bàyyi ko fi ba ci kanam a kanam defal ko wér ak wérle sutura daay man waaw loolu lañu koy ñaanal kontaan nañu sunu xol sedd na li nekk sunu biir xol ñu war ko génne jëmale ko ci moom sunu làmmiñ tuuti na pour génne ko mami nit ku baax la waaw waaw loolu mbiri sunu borom la mami xamul kenn ku dul galo galo xamul kenn ku dul mami galo dafa nekk koo xam ne dafa yaatu mami li muy yaatu yaatu yaatu yaatu borom këram moo gën a yaatu yàlla seede na loolu borom këram moo ko gën a yaatu fuuf borom këram taalibe taalibe fa mu commencé ba fa mu yem mooy borom këram damay lay jox benn anecdote am naa suma doom joo xam ne dafa ñëw fekk ko ci kër gi gis ni muy doxalee gis ni muy def nekk ci ndab yi nekk ci yëngu mu ne ma kii kan la mën ne ko kii mooy borom këru sa mago sa mag mami mu ne ma déedéet ma ne ko ah mooy borom këram moom tey jii fu mu toog di waxtaan ak ay xaritam kooku la jël comme royukaay comme exemple pour mu wan la rek diw boobu sunu borom la rek sunu borom mooy xool la ko neex mu def ko bon ñoom ñaar. dañ leen di ñaanal yàlla ñaan yàlla sunu borom mi nga xam ne mooy lépp moo mën lépp li nga xam ne moom la leen yàlla jox muy bant bi am yàlla ko yàlla sunu borom bi barkel yóbbu ko fu raw seen njort waaw muy xale bu baax moom it dëggal ay waajuram nekk fi ku ñëw doo xam ne sax kii day jàng mu ngi daw suba ba ngoon guddi ak bëccëg lay daw du noppaloo bon loolu sant sunu borom la waaw ñoom daal ay royukaay lañu di wax mami jërëjëf sàmm yàlla na yàlla fay yàlla na yàlla fay taxawaay bi yàlla na yàlla dolli sutura si eh, li nga bëgg yaa ko xam yàlla na la ci yàlla sunu borom bi yóbbu ci kàttanu sunu borom wér rek man loolu rek laa lay ñaanal yàlla wér rek laa lay ñaanal yàlla waaw jërëjëf. Omar Touré la buur jógee Gàmbi Kololi. waa jërëjëf eh, dañoo delluwaat rek sant eh, suñu borom di julli si yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa Eh, di gërëm borom bés bi muy Bamba di gërëm tamit ay waajuram dooree ko ci maam jaara eh, lu waajur liggéeyul rekk doom du ci kontaan ëllëg eh, foog naa ni li ñuy def rekk mooy nuyuwaat ñi nga xam ne ñoom lañ fi nekkal su may door nag nuyoo bi dama ko dooree ci tonto Babacar Taraware ki nga xam ne suñ lépp la parce que kilifa moom du passé kilifa suñu yaay mu ngi ci suuf eh, ki nga xam ne uuf na ñëpp di yaay si mami Samba eh, di nuyu tamit góor gi nga xam ni moo koy denc muy galo eh, njaay di suma xarit suma lépp suma broda mami tamit di ki nga xam ne moom laa jaar bi xam kër gi walla xamanteeg waa kër gi mi suma xarit moma bolé ak mom mi yalla dafa bëgg sédé motax sédé ngi ni tok suma jor muy nijaay ci ki nga xamné muy Mamar Mbergan euh, Mamar Mbeng euh, moma bolé ak mami ma contane ci bi pare nak wax la ne relation bi depuis bi mu doré bi légui projet la won waye lima gis passé na projet bu pare parce que projet da ngay jéxal nga def benen projet lañu boole woon romb nañ ko léegi mbokk lañ mag rakk lañ jëkkër lañ taalibe lañ doomi ndey lañ xarit lañ àdduna da koy yaatal te moom mi dafa yaatal mais jëkkëram nekk koo xam ne ni mu yaatalee passé na man mënuma leen a sant parce que kuy sant tey da nga pare ci ay jàmbur mais ñin day kontuñ jàmbur si man ku sant say bokk da ko commencé mais jeexalaguloo parce que ñooy sa seede ëllëg dafa am fuñ jaar euh, galo nekku fi woon man ma xamanteeg euh, sëñ bi muy ajaratu mami muy koo xam ni am na kóolare amul nag ku may ànd ak guddi walla bëccëg su ma ñëwee dafa mel ni suma kër laa nekk du dakaar du Touba teraanga yoo xam ni jaar na ci man ci samay xarit ba egsi si sama njaboot mu nekk ni luy commencé rek commencement bi nga xam mais fin bi wala ci digg bi doo xam fi ba muy toll e, bànneex mënul paase nga jógee fa war fa nekk nekkoo fa am ñu la fa nekkal ñu teewal la defal la toogal la muy loo xam ne lu diis la lu tiis la xëy na daaw yaa ngi fi société cérémonie bi wax naa bi euh, suma euh, xol tooy mais loolu yëpp teraanga àdduna la xam nga jooy naxar ak jooy bànneex dafa ute te yàlla nañ di jooy jooy bànneex toujours euh, Mamy Ngoné yàlla na ko fi yàlla yàggal Gallo yàlla na ko fi yàlla yàggal yàlla yàggal fi jur yi ak njoboot gi bu ma jógee nag si mami damay ñëw si rakka yeeg mag yi ñooñu tamit jël ma comme ni ñu jëlee mami loolu dafa jëfeñ si si famille pour nga ànd ak ñoom ñëpp jëlal la seen bopp mais yëpp si yaay ji la mère jël ma comme doomam def ma comme doomam lu mu yéene mami wóor na ma ni loolu la ma yéene wala mu yéene ma loolu passé loolu sax parce que nit uuf lu jëfeñ la eh, soo fa jógee tamit nga ñëw si suñu doom di sëñ xaadim di suma xarit suma doom suma jarbaat nit yar rek a am solo gis nga kaf ak ree nekkul pour yarade ko mais loolu confiance la pour wan ma ni jox na ma cër ci wàlli papam jox na ma cër ci wàlli yaayam xale yi kenn bu ma limee rek dinaa jum maam jaara moom dama koy bàyyi yàlla mooy togg dakaar mooy togg dakaar mooy togg fii mu nekk koo xam ni moom tamit dañ koo ñaanal jëkkëram taxaw ni di ngañ ñoom laa njëkk a xam si famille bi eh, muy famille boo xam ni yàlla na leen fi yàlla yàggal waaye eh, bis bi moo foor sëñ Touba dafa liggéeyal boromam ba boromam fay ko waaye bi mu koy fay gis nga toujours ma wax leen ñaata président ñoo yor réew mi Bayi ko fi te amuñ lu melni motax lu way di liggey rek dama lay won ne yow kenn yaay jitu ñu top la ñi dafa am loy set ndax yalla ngay liggéeyal ndax nit ñi ngay liggéeyal xam nga seigne touba kenn musu ko xarab ni ko defal defal nga yoon yi wala defal nga li do ko deg mais nguur mom lay mo lay wax ñu ne la ndox bi manqué na lii manqué na courant bi nangam nangam mais bo fi joge jexal nga ci kenn dootul la magal te lolu misal bu doy war la diine rek ngay topp yàlla rek ngay topp si coobareem ak li bëgg nga daw ko ba mu jeex boo fi jógee mu mel ni chaque jour da ngay gën a montage seet ko si yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa màkka bi muy door ute na ni duma ko méngaleeg Touba mais soo xoolee kilifa diina yu fi toog muy Touba Tivaouane Ndiassane ak feneen ak feneen ñoo ñëpp seen liggéey démb moo feeñ tey seet yeeg doom yeeg seet seetaat yëpp di ci barkelu mais topp yàlla rek a so ñuy wax rek ne bis bi dafa foor ci man jógee gambi nyu fi dafa mel ni jógee suma kër si suma kër mais ma tamit may leen a di leen gërëm ma ngi sama dom sama grand frère sama domi xarit andek ak tamit suma xarit suma rak ñang mu nekk koo xam ni ku ma déggal la te ñu yàgg ànd di liggéey waaye dëggu rekk am solo dëggu rek am solo dëgg moo ma booleeg mami moo ma booleeg njaboot gi moo ma booleeg ñëpp ñi nga xam ne ñoo fi teew te kenn ku nekk su ma gisee xam nga teraanga bi nga xam ne moom lañ ma defal dañ ma jaay ci biir kër gi jaay ma si famille bi jaay ma si ñi nga xam ne ñooy ñëw si màggal gi su buur ñëwul dafay mel ni màggaluñ te loolu may may la mais ñoom dañ ko liggéey may leen ci sant di gërëmaat yàlla di wax rek ni diggante gàmbeek ak nag ah ku ebo bàyyi ci xel diina daf ñu boole démb maam yi boole ñu démb koltur bi boole ñu démb kon niñ ci góorgóorlu lépp lu ci waay bayut rek du ko góob te dafa am cër bo xamni tay bo boo ci si bi wala nga ñëw ci penc bi do mëna a kan moy sénégalais kan moy gambien loolu dañ ko wara gëna a fonk ñuy wax rek ne bés bi màgg na ba pare motax kilifa ada go xamni ne ñëw nga rek wala kilifa nguur da nga wara jangat ci li gaay ji njëbat ko ba mag moy ni digënté Sénégal bo démé man ci bag bi lay liggé ci féer bi lay liggé mais da fay melni kenn nekkatul bi ñëpp préparation bi day ñël jël ay un mois wala deux mois ñuy pare pour pour màggal gi soo kon loolu su gàmmo ñëwee tamit même chose soo kon loolu dafa nekk lu am solo mu wan la ni ñi nekk bi war a ñëw Sénégal dañ day sakkan lool ñuy ñaan yàlla. yal nañ di ñëw di continuer di màggal si fii njaboot ji gën a booloo ba pare yàlla tamit aar ñu aar njaboot gi fii lépp luñ fi ñaan si bés bu tedd bii nii yàlla defoon ba rëccaloo sëriñ Touba ci fexe yi nga xam ne moom lañ ko defaloon yal nañ ko yàlla rëccale noonu si bépp fexe boo xam ne bu noon la waaye di ñaan tamit lépp loo xam ne ñu ngi ko séntu ci taraanga loo xam ne war nañ ko def ci bés bi wala ñu deflanti ko si njoboot gi yal nañ ko yàlla may mais ñu fan bu gudda musal ñu ci accident yu bari musal ñu ci feebar yu bari musal ñu ci ñàkk musal ñu ci gàtt fan waaye di ñaan rek yàlla musal ñu ci gàcc àdduna ak alaxira bépp jafe-jafe ci ñaari réew yi yàlla dàq ko bépp jafe-jafe ci Afrique yàlla dàq ko bépp jafe ci àdduna yàlla dàq ko yàlla mun te jeexal waaye mun na wàññi parce que moom moom te saa yu ko sofee rek mu def lu ko neex waaye yàlla nañ fi yàlla yàggal delu fi di magal di magal di magal bi am fi suñu keri bop am fi lepp lo xamne rek dañ ko soxla projet yi nga xamni sumba nañ ko euh duma ci waxagum mais xamna ne seigne Touba dina ci euh ñuy wax rek ne nañu yok ñaan ñaan lul ñu pare tamit jappale ñu eh, askan bi liñ soxla moy ku len jappale te jamono neexul waye nak kenn ku nekk Euh, war nga bàyyi xel li nga xam ne mooy sa njëriñ yi ëllëg kon sëñ Touba liggéey na te cofeel gi nga xam ne moo nekk Touba wala cofeel gi nga xam ne moom la yooni murit am yal na yàlla jox cofeel googu ci li nga xam ne ñu ngi ciy yëngu wala ñu ngi ko soxla waaye di gërëmati xalifa général bi sëñ Muntaxa di suñu papa di suñu lépp doomam di sama sëriñ na ko so man mooy suma sëriñ waaye fii mooy suma kër xam nga soo amee kër nga nekk Gambie am fi kër sa kër ngay dal mais suma sëriñ xam nañ ko ràññee nañ ko ñu ngi koy ñaanal màggal gi fekk ko ñu fekkaat yeneen ak yeneen ak yeneen ñu ngi koy ñaanal di ñaanal réew mi yëpp di ñaanal xalifa bi mu yàgg fi te wér ñun ñëpp ñu yàgg fi te wér mama nag suma xarit moom mooy suma protocole mooy suma lépp yàlla na ko yàlla màggal màggal xale yi fi nekk yëpp bu ñu rëccu dara ci li nga xam ne ñu ngi ko fi naan di ñaan yàlla daal ñu fekkee fi tombé fi ay ay ay màggali màggal waaye màggal yi nag di utee waaw di ute yow borom baax nga ñu ngi lay sant di la gërëm di gërëm seen site bi di leen sant di leen gërëm jërëjëf di sant tamit suñ njoboot gi nga xam ne ñu ngi leen bàyyi gannaaw di leen ñaanal yàlla yokk leen jàmm may ñu ko may ko réew ma tamit ñëpp ñu ngi leen a sant sama ñaari jabar yi ma bàyyi gannaaw ñu ngi leen a ziar muy Mam ak Amina ak seeni njaboot yëpp waaw loolu dafa am solo waaw ak njoboot ga yëpp sama grand yi xam nga ñun si kaw ga lañ jógee mais ñoom ñëpp ñu ngi leen a ziar li wax rek ne yoon moom benn la ñoom ñëpp dañoo jóge Saalum ñëw fii Touba ñu ñu jóge Banjul ñëw kon loolu la gars yi doon ñaan ñaani yaay ak baay moo nangu moo tax tey mun a demee nii jërëjëf. Gallo Mbaye Ndiaye. su ma bëggee identifié wu nag réellement ba ñuy seetaan vidéo yi dama di ma xam nañ ma considéré comme un élément de la classe cinq 3 ça c'est l'armée euh, ku ma bëgg xamit ci beneen identification man nga maa xam ci ku dëkk Daaru Minam nekk sëriñu soxna Mamy Ngoné sam bi nga xam ne bii moom la ma yàlla booleel ñu liggéey ci màggal gi euh, année bii nag mu nekk année boo xam ne bii dafa spécial trop ci man parce que vraiment il y a des têtes que j'ai vues qui sont venues qui n'ont jamais venu au Magal Nous sommes venus au Magal ça ça m'a fait un très grand plaisir et nous aussi chaque année dañuy ñëw il di magal. nous avons ñuy ci Magal gi y na nous le Magal gi muy lu euh, préparé préparé franchement waaye nag euh, borom màggal gi moo ci dugal loxoom de telle sorte que dangay ngay dem ba yow sa affaire daf lay dépassé très sérieusement ah, damay njëkk nag sant yàlla bu baax a baax a baax a baax julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah sant sama ay ñaari waajur ah sant sama ay njaboot muy samay doom sant sama soxna di ma yàlla booleel Mamy Ngoné Samb sant samay xarit ak sama ay àndandoo. pour vous dire que pas ci def je ne vais pas me vanter mon waruma parce que me vanter waruma Waye xam ne na ma ba kep ko ne que nga ci Magal lan rek duggal nga sa loxo motax magal spécial tay so que sama classe dans tous les coins lañu Sénégal ñi ñi ngi Kaolack ñi ñi ngi Saint-Louis ñi ñi ngi ba Kolda. amna ñoo xani bi mission lañ joggé mais dañoo taxañ seen mission dem Dakar ñew magal ci kon dafa nek retrouvaille bo xani c'est un peu spécial ci sama ay xarit yo xani bi depuis 20 ans on est ensemble actuellement on dépasse la 60 kon ànd boobu deug la ndax dañ ni mag euh, lo bok ak yalla mu ni yag ak yalla lool la mag bok ak yalla ñima yalla bolé aussi lool la bok ak ñom dama yag ak ñom trop trop trop trop trop bari na trop trop trop mena yam rek ci jërëjëf Serigne Touba ginaaw bu sante yalla jël ci yenant bi mën naa wax rek jërëjëf Serigne Touba parce que nak man sama ñew Touba c'est un peu spécial aussi eh, dama nekkon ak sama wajur man njambur né à Louga j'ai grandi à Louga ba ni ma incorporé dans l'armée bi may armée vu que sama papa ñun mag ñi no lañ dan def sa doom bu góor amé dar dang ko nan defaral fi ma nekk nga dëkk fa wàcc fa sa jabar man loolu la ma sama papa digaloon bi ma ci waxtaan ak sama yaay sama yaay ni ma nit day dégg day euh, dégg ndigal te day am kilifa comme sa papa nee na jox na li fii ci kër gi pour nga tabax fi nga indi fi sa soxna defal loolu loolu maa ko def deux ans avant ma retraite dans l'armée bi ma ko defee ba pare euh, ma def sama deux ans ma jël sama retraite sama yaay ni ma man de ma que nga dem Touba Gallo Mbaye ma ne ko mais yaa booy comment ça je vais à Touba man Touba amu fa dara amu fa kër may demee Touba mun ma demal Cheikh Saliou Mbacke mi ngi may ay kër 2000 francs borne bu nekk 500 francs muy 2000 francs mun ma soo demee Touba kër du fa sori soo demee fu ñu la daggal na ko té te nga fa lépp na la fekk ma boole li ma neex ak li ma naqari topp ndigalu kilifa bi may déménage fii ak sama soxna soxna ma mi ngoonee rien n'a été gratuitement Franchement, rien n'a été donné gratuitement. On a souffert. Et puis, vous mettez le YAG aussi. Euh, man, dama daan dabu ay gan bi may soog a toxu Touba man dama daan dabu ay gan dama daan togg ba mu ñor munumaa togg mbana mais dama ci ni ma daan togg boo defee 10 kilos bu ma ko am ku ma lekkal dama ko daan defar ba baax am sama xalifa bu muy wax Mbay Njaay ñëpp ko xam fii fum ma sa nek ci Touba dama jël ndab loolu defar ko mom bax fum nek ci Touba ma yobul ko ko niko ya sama khalifa ñaanal ma tay aujourd'hui je refuse du monde kon alhamdullilah c'est pas moi c'est pas moi peut-être c'est la récompense du bon Dieu alhamdullilah rabbi alamin du sama du sama point fort mais lima waron nek rek ci la nek ah, te ñi ma ko aussi encouragement toujours ku ñu magal rek daf ma naan jàppal mu bax ñuy dem ba yàlla soppi jamono nag yàlla soppi jamono daal yàlla buy defar day mel ni kuy yàq mu nekk des temps du durs mais alhamdulilah maak sama soxna Mamy Ngoné Samb on a le courage ba xaar loolu ndax nee nañ yoon moom bu baax objectif soo ko amee yoon wi dina metti lool soo ñimewul nag doo ci dox ba ca yegg mais alhamdulilah on a été très courageux mu japp ci sama ndigg nak jàppale ma trop mo wara tay bis bi ni classe 85 3 kooku ah bientôt on va bientôt dañuy jël benn mbéd fiñ ci tuddee ko classe 85 3 et c'est drôle les gens peuvent rire de ça mais très sérieusement classe li ma lay wax ni amna ci mbéd yu bari fi mo jege nii soo classe 85 3 rek doo réer sont tellement reconnus classe yeen da ngeen fi am tour fi ci koñ bi man ko xamni militaire la sax parce que yéen yéen tax ñu xamni militaire la donc ñom dañu am une très grande part de responsabilité dans ce que j'ai fait man kenn rek su won ci ñoom damay doyel mais dañuy ñëw ànd ak seen njaboot ànd ak seen soxna jël seen ñak def ci. ya j'ai des amis ils du ko do neub mi ngi ba États-Unis ñii ñi ngi ba Italie ñii ñi ngi ba Espagne vous ma actuellement dañuy yónnee dañuy bañ mais soxna lañ koy ni ko Vous luñ ko ñom dañuy sant ci magal gi xam aussi spécial bi sax classe rek depuis combien d'années je ne l'ai pas vu il est là depuis 40 ans je ne l'ai pas vu aujourd'hui il est là et d'autres personnes yo bi ño depuis 85 lañ mais aujourd'hui on se retrouve et on est toujours unis comme bi nekkee kon mën naa ne man sama mission ci magal gi sama mission fi Touba c'est pour me jëmmal la classe 85 3 franchement man man noonu laa gisee daal xaw ma nag peut-être que je me suis trompé. mais man xamna ni sama classe yi ñu fi vraiment vraiment moo naa sama samay mbokk nak am na ay mbokk kenn ëpp may mbokk ils sont là aussi ils viennent samay mbokk sama ay doomu ndey gis ngeen len ils sont là sama ay doomu bay ils sont là et puis sama soxna aussi ay mbokk ñu ngi fii mais li ci gëna particulier dal moy la classe 85-3 je ne sais pas le pourquoi mais sama yéene la te nag am naa satisfaction aw ma benn déception ci très sérieusement que ñoom li ñuy taxawee ñoom euh, sama jabar sax ñoom léegi dañ leen wutal ñuy tuddee classe 85 4 Hein? donc nga xam ne dafa spécial trop quoi mhm. il ne faut jamais avoir peur et toujours prendre ton courage à deux mains

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وعصبنا الله ونحم الوكيل نحم المولى ونحم النظير وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته seen xarit seen doomu ndey seen classe seen jëkkër seen càmmiñ ñu koy wax Ibrahima Fall mu nekkoon vingt-et-unième compagnie troisième section ca Bangu ci classe quatre-vingt-cinq trois yàlla def ñu affecté ko fu ñuy wax Thiès ca bataillon de blindé mu nekkoon fa nekkoon tireur LRAC kon kooku mooy Ibrahima Fall dëkk Ndakaaru dëkk bu ñuy wax Géejaway mbodd nga xam ni fala yaroo waaye fi mu nekk maa ngi HLM Paris euh, ca école ba nga xam ni moom lañ ma jox ma yore ko kon maa ngi wax waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonant bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ni xanaa li ñu yàlla wax rekk moom moo ci nekk suñu diggante ak Gallo mbay Ndiaye ndax yàlla moo ni bala ngeen ma sant. na ngeen sant nit ki nga xamni mom la jaarale samay ay mbir ak seen mbir ci mom ngeen dog ma sant bu ngeen ko bu ngeen ma bu ngeen ko santul bu ngeen ma santee duma ko nangu su ngeen ma santee do koy sant duma ko nangu kon motax ñun classe 85 3 yeb ci ndigalu suñu président ñukay wax Sayer Diop ak son bureau ak président cellule yëpp ñoo ngi wax Gallo Mbaye Ndiaye ñu ko sant nañ ko gërëm nañ ko ñaanal nañ ko yàlla lu mu man ren yàlla na man déwén lu ko ëpp Gallo Mbaye nag yàlla moo yaatal dënnam dégg nga li wax te Sëriñ Tuubaa dafa wax ni li commencé ci ganaar ba ca gëléem moom muy ñett ñetti commencé ci ganaar di ñett ñetti ba yàlla tey may ko mu mën a def ganaar ba ca gëléem kon su amee lu mel noonu mënoon koo yemale ci boppam walla ci njabootam mu associé si classe quatre vingt dañ koy wax gàcce ngàllaama te ñaanal ko yàlla muy gën di man li muy def wax na dëgg Gallo Mbaye Ndiaye laa tudd rekk ak xeet bi mu bokk rek doy na am ay mbokk su ko neexoon ay mbokkam rekk ñoo fiy fees su ko neexoon mu wax ak waa koñam fa mu dëkkoon ca Louga ñu ñëw fees wi waaye bëgg ay classam li lay wan ni du njistal ci li muy wax bëgg ay classam yéene leen loolu moo tax mu associé ñu ci ñuy ñëw di ko fekkee ah ñu ngi ciy sant yàlla bu baax nag ndax at mu jot su ñuy ñëw ñëw bi dina yokk bu ñu sañoon huit cent personnes yëpp ñoo fiy ñëw ba kër gi kenn du am foo tëdd kenn du am foo toog waaye yàlla moom mooy dogal lu ko neex inna allaha xelu ma yurid nii la dogale waaye ñun dadi kenn bu demalee ñëpp rekk day doy ñii fi ñëw wallaay groupe gi xeebu ko xeeb nañ ko ci bëggoon nañ ko indil ñëpp ñëwandoo waaye xeebuñu ko ci kenn ku fi nekk rek daf nuy doy surtout sunu classe bu ñuy wax Cheikh Oumar kamara moom moo fiy njëkk ñëpp mooy def annonce mooy woote moo ci jàpp ba tey suñu ay doom jël seen relève ñoom ñu mën a noppalu kon Gallo mbay daal ñun ñu ngi koy ñaanal yàlla lii mu ñu boole te muy kaay leen sant le ma Sëriñ Tuuba ñu ànd sant yàlla loolu dafa doy ndax Sëriñ Tuuba moom yonent bi rekk la joxoñ mu ngi wax ci xasidaami ni lam yabdul mislul Mustafa Muhammadin sirran wa jaalan fil baraaya kon wan nañu ni du kenn Moustapha rek la wan nañu ni du ñenn ñooñ diine rekk la ba tax na moom mu ni lii nga xam ni moom la jël mi ngi ko tudde muridulaa te muridulaa mooy firi ki nam ma jëm ci yàlla kan moo namu la jëm ci yàlla mag ña ba ñuy wax mag ña nga xam ni ñoom la ñuy adressé ni ñooy ay njiit ñu ni nañu laaj Abdou Khadir Jeylaani xayratu nañu laaj Cheikh naa Cheikh Ahmed al Tijani radiallahu taala anhu ñoom kuñ ci laaj nga ni sa sa moroom ñi woon ñu wax ni diw te tuddaluwuñ la garaat boobu ban garaat garaatu muridullah ñoom ñëpp ci yàlla lañ jëm sëriñ tubaa ñëw ni gëstu naa xam-xamu ni gëstu naa it yoon wi mu jël ba jàpp ci gëstu naa bu cheikh naa cheikh ahmed al tijaani xam-xamam ak yoon wi mu jël ba jàpp ci waaye terewul ñaan naa sama boroom ba mu may ma am nga sëriñ Touba mbégu africain la yàlla bi mu sàkkee yonent yi dafa wax ni Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa yow yaay mujjee ñëw te pourtant yaay moo njëkk a ñëw mu ne ko nag yaay tëj yonent yi boo ñëwee ba pare yonant dootul am ci àdduna te moom Muhammad la tudd bu ñu xoolee ci Afrique. ci àdduna bi sëriñ ku ñuy tudde sëriñ ci sëriñ Touba la yem te moom Mouhamed la tudd waaye nag der bu ñuul la ñun ñi nga xam ni ay jullit lañu ñi ci ëpp fanu mooy dafa am ku jóge bitim réew ñëw doy sunuy mag ñu jël ko waaye moom dafa dëkk fii di doomu damani nga ni an ah, ba pare mu wone mbégte gi Bilaal wone woon ca Màkka mu wone ko ci biir sëriñ si fii ci senegal ba pare nag di mbokk ñépp nag dégg ngeen li mu bokk ak Seydil Hadji dégg ngeen li mu bokk ak Maam Limaamu ak li mu bokk ak ah, góor gi ñàkkul saar ak li mu bokk ak li mu bokk ak li mu bokk ak li mu bokk ak kon koku bu amé talibé muy def xew-xew bu melni, bu boole ñu ci dañuy def lu sant yalla ñi ngi leen di gëreem bu baax di leen sant di leen ñaanal yalla ah at mu jot ñu fi dajé rek ba bu ñuy ñew ñun ñëpp ku nekk gaddu sa bant di sukotu di ñew té bu boba yalla ñu yalla may ay at waaye mu may lu wër wala nu wére wereyaan waaw kon ñu ngi leen di gërëm yéen tamit euh, ndax léegi li xew mooy média rek ah, ngeen góor góorlu te bañ cee gis seen bopp bañ cee def comme ñenn ñi nga xam ni dañ cey dugal lu ci bokkul waaye bu ngeen ko defee ci yar def ko ci teggin benn liggéey araamul nam koy jëfëndiko rek moy aram ah kon ñu ngi wax ni fanajina ya khaliqul shaytan min kaydihi wa salla bil iman wa jawratul shaytan ya rabbana faxdi lana al alxajaati wa charri kulli xaasidin wa hasida wa kayd kulli kaaidin wa kahida wa mufsid bid din wal khiraha yaa rabbana wa mujibul shaqaawa wa siqtu billahi wa bilkitaabi wa bi nabihi almustafa أدعو ببسم الله والمصاني وعاية الكرسي المعاني وسورة الإغلاز ستمجيد وفاس من مات مع التوحيد ومن دها بسي على اليقين يجب بمرام من المتين مجيب يا مجيب يا مجيب فاقبل دهاء وجل الخريب نسألك تسليم بالخضاه والصبر وردة لدى البلاهي بالمصطفى صافه كل الخلق سبت الله منطقي بالحق أسكى صلاة الله وتسليمي على الذي بشر بتسليمي وعليه قراح وطابحين ثم الأولياء يا ربنا يا ملك الكونين فنا عليه في الدارين عملتنا الله على دين نبيه وهب شيقنا إمام التيب آمين آمين أستجب دعاءنا ولا تخيب سيد رجانا أرجو الأمانة يوم لا أمانة إلا لمن آمنه مولانا وافتح لنا كل باب كنت فاتئه لسالهنا من الخيرات يا الله اللهم صل على سيدنا محمد وسلم